L'éducation est un petit pilier, meilleur développement. Parce que la formation du tout. di nga mun a dem liggéeyi ñëw dolosi ko ndulo comme nu mu koy defee aujourd'hui dans le mon frère Seydou Diop mu nuyu mon doyen mon ami mon promotionnaire Abdou Cissé ancienne autorité muy tari ñëpp ne alhamdulilah kon ils ont fait le bon choix mais ci biir nous, aussi nous di présentons nañ délégation bi àndal mais descendons na Seynabou Bey venu en dernier moment mook ñoom ay dajeen ñu ànd ak moom kon mel na ni mën nañ leen yóbbaale. di nuyu bépp délégation bi fi nekk. non lumière bi ëppoon ci moom laa doon waaj. honorable gisoo bi moo bari woon. mën a nuyoo dama lay félicité yóbbaat na nuyoo ci sëñ bu baax bi suñu xarit suñu sëriñ ñun ñëpp kon de tudd na ko. macha allah bu du rafet. du rafet waaw. mais nuyu ñu bu baax a a baax ne ko ñaan yi mu ngi wasaaroo si njobootam. Merci beaucoup. Je te félicite de par le travail là-bas. On a tutoyé des manières. On ne pardonnera pas. Mais tu as abandonné mon travail au niveau de l'Assemblée nationale. Et je crois que dans le monde à falloir aujourd'hui, nous nommer le député pour CDA. Afrique. Nous devons le département de kooku ça doit être une fierté pour Ndoulo. Ah, waaw Ndoulo war nañ bëgg si yow. pour la première fois le département a un député digne de son nom qui défend les intérêts de manière générale du département de Diourbel maintenant quelqu'un en a quelqu'un défendre mais non non non c'est pas du nous. vous êtes dans le département et vous défendez le département aujourd'hui c'est le jeune Mara vous faites un bon travail et je vous félicite mais je voudrais également vous encourager parce que ce n'est pas encore fini amna des anges amna fuñu fu ñu jëm am na lu ñu mébét am fuñu ñu xalaat mais c'est est heureux que j'entende ici à nous le coordonnateur de de de de Benno Bokk Yaakaar dire que Macky joxoñ na kam joxoñ la ñuy dox fa lañ jëm loolu lañuy dem merci monsieur Diop. c' est ça qu'il fallait faire moo tax initiative bii nga jël di jàppale xale yi ñoom ñi nga xam ne ñooy mag ëllëg ñoo yore relève te xale du fàtte.

ñu bëgg a fa teg noonu kon nag franchement dañ lay félicité c'est vrai que euh, mon fils me dit que mon temps est pressant je le conçois mais déjà je na ma enveloppe pour contribution mais je ñëwee naa la ko jox ci public bi une enveloppe de 200 000 francs. une enveloppe de 200 000 francs. Très lan nga wax sax yow. di jël nuyoo bi le chef du village. bu ma nuyoo chef de village ba pare damay nuyu monsieur le maire de la commune de Ndoulo par Assane Mbou di nuyu le commandant de la brigade de la gendarmerie de Ndoulo bi nga xam ne waroon na fi teew woon na ma léegi nekk ci yoon guddee di nuyu le sous-préfet di nuyu allo personnel administratif bi nga xam ne ñoo ngi fii teew ñoom ñëpp waaye di nuyu aussi jàngalekat yi nga xam ne moom lañu seet si tey fii ci case des tout-petits de Ndoulo di jël nuyoo bi di ko teg ci loxo le directeur de la case des tout-petits monsieur Cheikh mbay bu ma ko nuyoo nag mel na ni nuyu naa ñi fi nekk ñëpp jaare ko ci Ama Diop ak jàngalekat yi fi nekk yëpp wante di nuyu ginnaaw bi ma nuyoo waa dëkk bi nuyu Ama ak xale yi nga xam ne ñoo nekk ci école bi ak jàngalekat yi di nuyu gan ñi nga xam ne tey ñoo ñëw fekke si lii di waa dëkk bi ak ñi nga xam ne ñoo dëkk dans les villages environnants waaye di nuyu délégation yi jóge Diourbel bu ma nuyoo waa dëkk bi nag damay jiital ci nuyoo boobu le coordinateur Seydou Dione ak délégation bi nga xam ne moom la ñu àndal muy tous les responsables de Benno Bokk Yaakaar ñoom ñëpp ñoo ngi fii temps bi moo xat mënuma lim seeni tur mais délégation bi ma àndal te bokk ak ñoom Benno Bokk Yaakaar maa ngi leen di nuyu ñoom ñëpp di ci jiital Seydou Dione wante di nuyu ki nga xam ne mooy Mamadou Ly amoon yéene aussi teew ci bës bi am ngant waaye nekku fi mais mel na ni moo ngi fi ndax ñun ñoo ko fi nekkal jarbaatam moo ngi fi njabootam ñoo ngi fi ñoo koy nuyu moom it di ko sant di nuyu aussi délégation bi nga xam ne tey jóge na Jurbel ci turu Dame Diop euh, Mahmoud Konté jiite ko muy sama frère sama càmmiñ Dame Diop monsieur le ministre di suñu kilifa di suñu xarit ñoo koy nuyu à travers délégation bi nga xam ne yebal nañ ko mu jóge Diourbel Mahmoud jërëjëf ñoo ngi lay jox nuyoo monsieur le ministre Dame Diop. wante di nuyu aussi ki nga xam ne tey mën naa ne compagnon de guerre la di sama xarit di sama càmmeñ muy la DG Sayer Diop DG Sayer Diop amoon na yéen a ñëw xam naa ko waaye programme yi ak xat-xat yi rek moo ko téye. waaye mel na ni ñëw na ndax yebal na délégation moom tamit bu mat délégation suñu nijaay Diegane Gueye jiite ko ak euh, madam Cissé Ami Ndiaye di daaf directeur administratif financier bu AEMA e. ak délégation bi ñu àndal yépp à travers tonton Diegane maa ngi leen di nuyu bu baax a baax su may lim day yàgg xam naa leen yéen ñëpp kenn ku nekk gis naa la maa ngi leen di nuyu mais mënuma ñàkk tudd aussi bu Bey moom it ak ñi mu àndal léegi ñoo mujjee ñëw di leen dalal jàmm di leen sant suñu teewaay fii tey nag mooy ñëw tey indi ndimbal ci case des tout-petits Ndulo Ndulo nekk dëkk boo xam ne fi lañ dëkk yàlla def dañuy sant d'abord son excellence la président Macky sàll moom mi nga xam ne tey bu ñu taxawee fii vous wuyoo turu député mon motard tax duma nopi diko c'est la première fois dans l'histoire on retiendra que dans la commune de Ndoulo la première fois ñu am député et c'est une femme c'est honorable John Beng. lolu nak, lolu nak, wax l'histoire retiendra té ki tax ñu am ko ki tax tay ñuy avons Ndoulo amna député Mouille son excellence le président Macky Sall ñu koy sant ci turu sant bu am commencement waaye amul fin di sant aussi ñi nga xam ne tey ñooy ministre yi nga xam ne ñoo nekk ci gouvernement président Macky Sall te di ko jàppale ci liggéey bi te it di ma jàppale man mën naa ci lim le ministre des finances Moustapha Ba mën naa ci lim le ministre des force armées di sama càmmeñ di sama xarit El Hadj Omar Youm foofu aussi faw ma taxaw ci ñoom ñaar parce que nag ñaar ñooñu ñu ma jàppale lañ Moustapha Ba El Hadj Omar dañu nekk samay càmmeñ jàppale ma lool lépp lu ma nekk ñu nekk ci bés bii tey ñu taxaw ci am ci solo lool kon maa ngi leen di nuyu wante di leen sant di leen honorable député yépp yi nga xam ne nii tey jàpp nañ ci bés bi moo xam teew nañ fi wala teewuñu fi maa ngi leen di nuyu di sant assemblée nationale à travers euh, Amadou maam Diop le président de l' assemblée nationale. di sant aussi suñu président commission euh, Benno Bokk Yaakaar le président Abdou Mbaw kon ñooñu nuyoo bi yëpp maa ngi koy teg ci seen loxo ñu jàllaleen ma ko ci biir assemblée nationale di wax ne wàndu la mënuñu leen fay. dañu ñëw jàppale leen parce que dafa am ay doomu dëkk bi ñoo xam ne ñoo jiitu ci case bi muy la directeur des cases des tout petits mbay ak Ama Diop di doomi Ndulo nekk nit ñoo xam ne wax dëgg yàlla su leen neexoon ñu dem liggéeyi feneen ndax nag ay ndaw lañ waaye ñu diis gann ak ay diplôme mënoon nañu dem enseignement supérieur mënoon nañu dem feneen waye bëgg seen dëkk moo tax ngeen tok fi yor seen rak yoré kaas bi di doxal di santaale aussi par la même occasion yeneen kat yi ngeen fi nekkal ñëpp Cheikh euh, samay kaddu ci yow la koy jaarale yow ak Ama yaakaar na ne kep koy doomu du la taxaw fi xam nga jafé jafé yi case des tout petit dëndulo di jànkonteel buñu koy wax nak dañuy sante non brave maman ñi nga xam ne ñoo nekk ci dëkk bi di ci jàpp mën naa ci lim ku mel ni Mbène Diop mën naa ci lim ku mel ni yaa Ami Diop mën naa ci lim ku mel ni yaa Ndeye ñi nga xam ne tey hmm? mën naa ci lim ku ni Ami Diaw ñi nga xam ne tey ñoo dugg ci dëkk bi di ñoom di def lu mel nii may def collecte xaalis di ko jàppale xale yi ngir doxal kaas bi kon yéen ami ñoo ngi leen di sant bu baax

ñu leen di jaajëfal man na initiative bi bi ma ko amee ñeewental leen ak yërmaane laa am ci yéen coono bi ngeen xam ne yéen a ngi koy daj di dugg ci dëkk bi ngir lijjanti lu xale yi jëfandikoo ces enfants là ñoom ñooy avenir suba tey jii loo def ci xale rek da nga ko da investissement la boo xam ne ëllëg nga koy xam xale la yàlla bëgg ñun ñëpp ay yaay lañ ay njaboot lañ man tey jii fi laa gis sama doom di théâtre sama yaram dafa daw fan yi yëpp daf may répéter di ma wax yaay man de maa ngi répéter théâtre di wax ne euh, dañuy dalal honorable député mooy ñëw seet si ñu teral ñu war ko sant te xale du fàtte lu fi waay def ci gone ëllëg day toog du ko fàttaliku ma leen di xamal ne bés bii xale yi dinañ toog fii ak 10 ans 15 ans di ko fàttaliku ndax xale du fàtte te lii jaamu yàlla rek moo ci nekk du politigu dara am yërmande ci ay xale yo xamne war nañ leen a ngir ëlëk ño nekk lu suba ñu ñëw jappalé leen. té l'école élémentaire bi nga xamne mo ngi fi momit euh monsieur Sagna et le doyen des sages euh, tonton Cheikh sar di sant aussi Baye Abdou Sow ak ñi fi jël kàddu yépp di leen sant di leen gëreum di wax né li xëñ na certes c'est une première mais ce ne sera pas la dernière fois dinañ fuñu tollu rek. dinañ teg suñ loxo ci kaas bi ngir jàppale leen ba jafe-jafe yi gën a wàññeeku te am nañ yéene tamit def ko ci yeneen école ak yeneen école parce que tam yàlla dogal na ñun député département lañ lii dañ ko tàmbali fii rek mais am nañ yéene def ko ci yeneen gox yoo xam ne yeneen dëkk yoo xam ne ci département bi yor nañ ay case des tout-petits ñu dem ñu am jafe-jafe yu mel ni yéen ñu jàppale leen euh, am nañ yéene bu bari ci ndulo nag waaye dafa fekk ne boo jiitee département li la war nduloo war la ci beneen dëkk war la ci beneen dëkk li nga yéene dina bari waaye na koy mënee du demee noonu moo tax boobu ba tey ñuy waaj di ñëw seet si leen indil leen suñu asaka yéene ngir jàppale leen ci kaas bi di sant ñi fi teew ñëpp nag waaye di sant ñii nga xam ne tey ñoo jógee euh, kër sëñ mu Sil ñëw jàppale ma ci bës bi ñu jóge ture Ndulo bu sa joon ñëw jàpp ci ak waa dëkk bi yëpp waye mention spéciale ñi nga xam dañoo dugg auto juggé Dakar juggé Diourbel ñew ngir bokk ak ñun bëss bi madame Cissé Amy Ndiaye ma ngi lay sante bu baax na né ne da nga tëj sa bureau juggé ba Dakar dag sa liggéey ngir sama jëm mënuma la ñàkk sante spécialement parce que li dafa euh bu la neexoon nga tok yebal wa Diourbel té bu ak mot nañ ndaw sëkk ndax tonton Diagane mii ci sama ginnaaw mat na kilifa sànq bi muy wax sama yaram dafa daw ndax moom mii moo ma tàggat ci politique moom moo ma yar ci wetu Aminata Tall lépp lu ma xam ci politique moom la xam na fi ñu jaar xam na lu ñu daj ba aksi fii ma koy sant di ko gërëm di sant aussi madame la présidente Aminata Tall à travers tonton Diagane ki nga xam ne mooy sama idole mooy sama référence moo ma tàggat ci politique lu ma xam moo ma ko jàngal moom aussi maa ngi koy sant di ko gërëm wante nag euh, bu ma sante ministre Dame Diop damay mujj ci ki nga xam ne mooy ki nga xam ne ni tey ku ma dooleel la ku ma jàppale la ku ma accompagner ci politique muy la DG Sayer Diop deug la daba bu courant coupé lampe yi tak président Macky Sall la waye bo duggé ci all bi courant amu fa waye ma nga lèr nañ grâce au DG Sayer Diop fukki village ak juróom-ñaar ci ndulo électrifier nañ ko ah mom mo ci japp ba lolu sotti ñuy santat bu baax la DG de l'ANER Tamsine jaay bi nga xamne xaritam la te jàppale ñu bañu jot ci lolu kon nak Euh, mënuñu ñàkk sant encore une fois son excellence le président Macky Sall ci réalisation yi nga xam ne def na ko ci Sénégal politique ñu waaye lii suñ ko mënee ba taxaw fii di ko def c'est au président Macky Sall ñu koy sant di ko gërëm di ko wax na ko ndula am na député waaye dañoo bëgg ay DG dañoo bëgg leneen ndax ndulo dafa war a jëm kanam dafa war a gën a avancer nii kon nag ñu ngi tàllal loxo tamit képp koo xam ne ah mën nga ñoo jàppale ci suñu gox yeeg goxaat yi pour mu mën a gën a développé rawatina nag fi nga xam ne fi la ñuy tàggate xale yi war a doon avenir suba kon nag sans plus tarder dañuy jëm ci jébbal leen li nga xam ne moom lañ indi tey muy loo xam ne lu symbolique la ubbi ko ana kii bi muy loo xam ne c'est quelque chose de symbolique bariwul waaye yéene kese la te am nañu yaakar ne lu muy néew ak bari dina xawa jappale xale yu tuti ci sen déroulement ba ca kanam li 1 million 500 la bo xam tay dama ko indi jappale ko la case des tout petits de ndulo 1 million 500 di sante bu baax di sante bu baax la case des tout petits di sant kat yi fi nek di sant wandulo bu baax di sant ñi nga xamne ñoñu jappale ñu ba ñu mën li di sant ñu doon organiser bu baaxa baax Cheikh mbay ñong lay féliciter parce que tribune bi ñu taxaw ñun ñoko inaugurer tay nga jël sa doole ak sa matériel yépp def ko ci kon ñoo ngi ñaan yalla na rap ak jamm di sant bu baax nak spécialement sama frère Ama Diop mënuñu ko ñàkk sant